bëri na fi ay kër yoo xam ne yàllaa ñuy suturaal nii rek barke alxuraanu karim mais kër yi ñun bu ñu sañoon ku nekk boo sañoon tey tey tey di nga tabaxaat sa kër mu gën a dëgër nga dëkk fu assuré fii kenn bëggul dëkk fu bon suñu bâtiment yi ñu ngi daanu suñu démb rek am na benn lii bu fi daanu woon si ñaari xale yi jigéen ak xawma kan ak kan fii suñu kanam dañ doon liggéey nii ñu jékki-jékki affaire bi daanu ci kawam xam nga yooyu ay risque la yoo xam ne Sénégal foog ñu dimbali ñu ñun suñu jiitu réew yi ñoo ñu mun a dimbali du kenn. mais c'est facile c'est facile quoi parce que yow yow nguur gi foog naa ni nit ñi bu ñu la tegee suñu kanam rek am nga part de responsabilité cent pour cent boo xam ni yow war nga ñëw doxal sa bopp di yónni ay ndaw ñuy xool kër yoo xam ni. luñ si mun a defar ñu defar ko lu ñu mënul defar ñu wàccee ko parce que bakkan amul lenn lu ko gën quoi man si sama xalaat bu gàtt waaw parce que nit yaa ngi dee comme ay weñ si ay kër yi daanu ay xam nga dafa metti quoi mais projet boobu mun na dox mais à condition parce que yow nit ki mënoo ko génnee këram ba pare nga sànni ko si mbedd bi loolu mënul nekk kenn du ko nangu tey duma la ñëw fekk sa kër nga ne ma nee la sa kër gi dafa yàqu da nga ko war a daaneel nga ñëw rek daaneel ko noonu léegi fan laay fanaan si mbedd bi loolu mënul nekk am na yoo xam ne hors sujet la quoi nit avant de faire quelque chose il faut bien réfléchir mooy comme dix mille problème nu mu dix mille problème nu mu koy waxee rek avant de parler il faut réfléchir mais balaa ngay def dara tamit foog nga xalaat nit munoo ko ñëw génnee këram rek man barki Seydina Mohamed xaw ma nit de mais man man man personnellement su ma amoon kër mu doon ay rusit sax te aw ma lu ma koy defaree fa laay dëkk ta nit du ma si génnee parce que sama kër la bàyyi ma ma dee fa sa yoon nekku si man personnellement si sama xalaat bu gàtt. yow boo ñëwee ba di daaneel loolu kattan bi nga ko amee ba di ko daaneel war nga mun a am kattan boobu ba may ñu fu ñu mun a suturloo ñu mun ko defar wala nga jàppale ñun ñu defar ko. nguur gi nañ ñu dimbali rek fa nguur gi moom lu ñu war a dimbalee bari na bëri na trop bëri na Sénégal instant yi dañoo sonn ñëpp a sonn gis nga groupe bi fi toogoon lépp. léegi léegi barki alxuraan ñoom ñëpp ay clandestin lañ ay xale yu ndaw ay jigéen ay góor dëkk bi moo metti waxatumala ay kër sax mais nit ñi ñoo lekkatul billaahi dama bëlee waaw dëgg la loolu xam naa gars dañu ciblé Médina rek mais pourtant du Médina de zone boo dem am na fa am na Médina am na Pikine am na Yëmbal am na fépp parce que waaw mais parce que mais parce que pas màgget mais parce que fii kër yi dafa yàgg te am na loo xamante ni liggéey bi la te te dëkkuwaay bi moo demee noonu parce que affaire yi instant bi fépp la mais gis nga affaire yi mais comme instant bi ni mu demee nii tabax yi moo màgget te instant bi location yi dafa seer dëkk bi dafa dëgër yow noo dëkk ci kër amoo nga dëkk ci kër nekk ci kër am ay personnes yu bari amoo lu ngeen faye yaa ngi dégg léegi ngeen bëgg a ñëw état teg ko tabax ko affaire yooyu loolu moo tax mais instant bi lii moo na nekk loo xamante ni fépp foo dem am na fa daanaka mun na ni mën naa la gars yi ciblé rek mais c'est pas l'appel mais lii moom du dara quoi non loolu moom xam nga ne kenn rafetlu ko te kenn bugg ko parce que gaañu gaañu fépp fu mu am loolu ndogal yàlla la te képp kuy xëy sa wala kuy yeewu wala koo xamante ni yaa ngi bugg dem ay gaañu gaañu taxul la tax mais lépp loo gis ak ndogal yàlla la lépp lu am dañ koy nangoo ndogal yàlla mais loolu kenn bugg ko état bugg ko man bugguma ko maire bugg ko. kenn bëggu ko chef de quartier bëggu ko. mooy ñu jàppale nit yi nga xam ne borom kër yi nga xam ne ñenn ñi bëgg nañ defar seen kër yi mais dañu amul doole doole boobu état moo si mën a jàpp xool nu ñuy jàppalee nit yi parce que mënoo tëj kër ñu ko defar te amul fa dëkk loolu mënul nekk xam nga kenn bëggul di dëkk tëdd ay bâtiment daanu sa kaw ak bool bolko loolu kenn kenn bëggu ko mais affaire yi na si état jàpp rek gars yi jàpp si ñu ñu doxal ko lépp naaj parce que lépp c'est le Sénégal loolu daal man laa si gis quoi te Médina mun naa wax ni fii laa juddoo fii laa màggee sama kër a ngi nii si ginnaaw bëri na fi ay batiment yu daanu bëri na fi ay kër yu daanu. bëri na fi torop bëri na fi torop ba pare ñu ngi koy ñaawlu dëkk bi moo metti dëkk bi metti na méttiwaay boo xam ne nit ñi lekkatuñu waxantuma la ak ay kër yuy dund. kër balaa nga koy defar foog nga lekk ba suur foog nga tal li ngay lekk nit ñi jamono bii li ñu gën a dugal seen biir la ñu gën a tal ni ay kër. moo tax seen bakkan bàyyeetuñ si xel ku dem bay dugg ay gaal kay kooku kooku pare na si lépp.